tey nag dañu defoon euh, une rencontre ak euh, les services techniques les forces de défense et de sécurité mais également yeneen services yi nga xame ne que euh, privé sax nañu nekk pour ñu xool engagement li nga xamee ne que moom la comité d'organisation bi soxla mais également engagement yi nga xamee ne que moom la service yi jël léegi am nañ ay discussions yu bëri la nga xamee ne que def nañ ko te am nañ yaakaar ne su nekkee ne tëralee nañ ko di euh, dinañ mën a am résultat yi nga xamee ne que moom nañ doon seet et damay wax ne que liggéey bi tey euh, mën naa wax ne que comité euh, départemental développement la am na beneen réunion ba nga xamee ne que war nañ ko def semaine bi di ñëw muy le 20 pour mën a au niveau régional aussi ñu def liggéey bu ni mel avant dem niveau national euh, loolu rek day day wax ne que day am ay paliers yu bëri ya nga xamee ne que foofu nañuy saytoo euh, fu nekk par rapport à engagement yooyu mais aussi dina am ay rencontres ya nga xamee ne que pour le suivi la da nga xamee ne que sous-préfet dina ko def des réunions sectorielles pour def suivi yi nga xamee ne que moom la ñu defoon comme engagement moom la ñuy def également pour mën a xam fan nañ toll mais également su nekkee ne am na ay jubbanti ya nga xam ne war nañ ko def ñu def ko à temps en rapport toujours avec le comité d'organisation par rapport à hôpital bi du ne dafa dafa dafa manqué woon ndox parce que am na dispositif ba nga xamee ne que mettre nañ ko à place pour que mu mën a approvisionner hôpital bi euh, am na benn benn benn conduite bu fa jaaroon ba nga xamee ne peut-être mënul woon def jouer rôle bi nga xamee ne que moom la forage boobu doon jouer mais aussi am na camion citerne ba nga xamee ne mettoon nañ ko à disposition pour mu mën a approvisionner quotidiennement l'hôpital donc loolu euh, solution provisoire la woon maintenant dañu bëgg dem ci solution définitive mooy fonsage forage boobu ñu def et que mise en service yi moo ci des et loolu une discussion technique entre la Sénélec ak euh, waa hydraulique dinañ ko def dans le meilleurs délais mën naa defe naa suba sax nañuy war a dem sur le terrain et que dans la la la la semaine suivante normalement war nañu mën a mettre en service euh, kii boobu nga xamee ne que mooy euh, forage bu Matlaboul Fawzayni at yi yëpp moom magal bi ci euh, nawet lay tombé et ñu xam ne Touba aussi amoon na situation d'inondation yi nga xamee ne que moom nañu vivre vivroon surtout l'année dernière et que en année dernière ak léegi nii am na mën naa wax ne que beaucoup de choses qui ont évolué Euh, benn bi may jëkk a commencé mooy euh, par rapport ak euh, nappe phréatique bi nga xamante ne dafa demoon ba day affleurer ci yenn yenn yenn yenn zones yi am na dispositif de forage nga xam ne que moom nañ mettre en place te ndox mi commencé na wàcc bu baax loolu ñoo ngi ko seetlu ci au niveau des cimetières mais également ci quartier environnant yi te population yi seen bopp ñoom Euh, ñoo waxal seen bopp ne gis nañu des améliorations yi nga xam ne moom nañu am euh, six forages moom mooy fonctionner fu mu nekk douze nañu gasagul six euh, moom mooy fonctionner et que selon certains techniciens sax ndox buy wàcce gum na à peu de de un mètre donc pour dire que y a une nette amélioration te dix-neuf forages nag moom nañu prévoir donc six mooy fonctionner sur dix-neuf prévus donc pour diir que euh, mën nañu am vraiment une amélioration par rapport à ça beneen mbir bi mooy euh, mën naa wax ne que am na des choses ya nga xamee ne que def nañ ko en en plus point bi ñuy wax PK9 euh, daaw moom moo indi indi woon nañu ay jafe-jafe yu bari parce que point boobu mën naa wax ne que moom moo déversé woon sax ngiraan ba nga xam ne am nañu ay inondation Euh, ren il y a un dispositif qui mis en place ba nga xamee ne que sapeur pompier yi ils ont mis euh, benn électropompe bu un mètre cube heure mille mètres cube heure nga xamee ne que de de de point KPK9 dina mën a pomper si réseau bi nga xamee ne mooy dem fële au niveau euh, de Kër Niang et à Kër Niang mën naa wax ne que capacité de refoulement bi maanaam li nga xamee ne que moom lay la mën a génne di ko di ko di ko envoyé si déversoir bi daf ko doubler donc loolu aussi dispositif ba nga xamee ne que bu bees ba nga xamee ne que moom nañu moom nañu kii en plus de relèvement euh, mën naa wax ne que mur yi nga xamee ne que moom mooy bassin donc loolu tamit day augmenter capacité bi nga xamee ne que moom la bassin bi mën a mën a mën a mën a jël en plus de d' autres yi nga xamee ne que déjà jot nañ ko euh, finaliser. ne jataay la boo xam ne benn la ci jataay yi ñaareelu jataay bi nga xam ne faral danañ mm, tàmm nañ ko amal ci. waajtaayu màggal bu ci waxtu yi c'est CLD moo ko jiitu comité local de développement tey préfet taxawal détail bi muy CDD lépp nag doon ay liggéey yoo xam ne day dëppoo ak xalaat ak yéene comité d'organisation bi. Euh, waaye service yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci liggéey boobu yëpp ñu présenté leen suñuy xalaat ak suñuy bëgg-bëgg ñu wax nu seeni taxawaay ci loola loola nag fii ba bañuy def euh, incha allah euh, réunion nationale dañuy continuer di améliorer document boobu ndax document de base la boo xam ne mi ngi tàmbalee CLD poñ bu nga xam ne fàtte woon nañ ko ñu indiwaat ko euh, xalaat yu bees it yu ñu am ci man ko mu doon ay innovation ñu mën ko ci dugal loolu kon moo waral réunion yi defe na ñu ci sant nag taxawaayu autorité yi bu baax sous préfet ak préfet euh, ndax euh, processus bi ñoo koy ànd ba ba keroo euh, màggal gi di jeex euh, amut it lenn loo xam ne benn réeroo boo xam ne mas na ci am mu mel nag ne du ñàkk ay jafe-jafe ay jafe-jafe moom bis bi moo ko laaj ndax moo toll noonu faaw mu làmboo ay ay manquement ak euh, ay jafe ci yenn yenn barab yi yenn secteurs yi waaye lu mu ci mën a doon euh, yéene ji mooy lépp tegu ci yoon nit ñu ko xalaat it mu doon xalaat boo xam ñëpp ci ànd man mën koo doxale noonu ba keru mu egg loolu mooy yéene ji waaye nag bàyyi nañ xel ci ne difficulté bu amit am na nuñ ko war a mën a surmonter euh, waaye difficulté yi ci ëpp moom ndox la ak li ci aju yëpp bu ñu waxee ndox nag des fois courant mën ci cee aju euh, wala manque de matériel accessoire yoo xam ne lu mel ne ay groupe électrogène wala yu ni demee wala forage bu paan wala réseau bu am problème yooyu yëpp ay ay ay mbir la ñoo xam ne manque ndox mu manqué loolu mën na ci aju yooyu yëpp nag ñuy xalaat ay pexe ak i jumtuwaay yuñ ci mën a génne ak jàmm incha allah euh, waaye nag communication dafa doon loo xam ne dafa munta ñàkk ñi ñaan yéen ngeen jàppale ci wet googu ndax it wax problème yi ci ndox rek doyut waaye di yee nit ñi ci ne ndox bu matoon sëkk ci jamono judul màggal it bu màggal ñëwee ndox yi parce que loolu événement it moo ni toll ndax ab dëkk bu fekkee dañu am ay un million presque deux million d' habitants buñ waxaatee ne ay trois millions quatre millions da ci yokkuwaat ci benn intervalle une semaine loolu lu fa doyoon it dana manqué parce que bëgg-bëgg yi benn la ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñoo bokk ay yitti ñoo bokk ay soxla kon defe naa ngeen jàpp leen ci sensibiliser nit ñi tax ndox moom problématique bu rëy la te ñoo ko bokk di dund ndax ci ñu ci ëpp ci yéen ci dëkk bi lañ dëkk li fi xaw xam ngeen ko waaye nag du volonté organisateur bu màggal gi du volonté it euh, ñi fi nekk ci liggéey ci ndox mi en permanence. Euh, li ci des muy problème wér gu yaram ndax ñu ngi waxaat ne pandémie bi muy commencé waat di am ay euh, yokkuteeg yu mel noonu ñu wax ne lool yi ñu ngi ci bàyyi xel bu baax ndax dispositif bi ñu jëloon ci ci waxtu yu njëkk ci bi mu déclaré woo rek ba tey bàyyiwuñu ko ñu ngi toujours ñoo ngi en en alerte par rapport ak yooyu nit ñi ci newoon ñi ngi ci. xam-xam bañ amoon dafay yokk waaye wàññikuwul mooy it incha allah dañ ko yokk waaye duñ ko wàññ euh, ndax it bu ñu sañoon nit ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm mu des nag benn question boo xam ni bëgg nañ ko wax wax traité nañ ko fii muy caisse d'avance caisse d'avance bu ngeen ko déggee mooy xëy na benn budget la boo xam ne dañ koy jagleel wér-gu-yaram ci màggal gi mu jëm rek uniquement màggal gi ndax xam nañ ni euh, euh, c'est une euh, xam nañ xam nañ ne ay ay jamono yu spécial la ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi kon nag faaw ñu am ay décision yu spéciale par rapport ak loolu ñu bëgg yokk moyen faj yi ak te it faaw mu am ay bis yoo xam ne gratuité day am maanaam nit ñi dañuy faju du ñu jënd ticket du ñu te it ordonnance yi mën a yi fa am dañ leen koy jox gratuitement yooyu tax na ñu am caisse d'avance caisse d'avance boobu nag dañuy ñaan ñu yokk ko dañuy ñaan ñu yokk ko ndax euh, lu xel mën a nangu la ndax euh, centre de santé yi yokku na population yi yokku na euh, hôpitaux yi sax yokku na nit ñi màggal si aussi day yokk kon ñu ngi ñaan aussi ñu yokku ko euh, ci anam ñoo xam ne dana feeñ ci liggéey bi bu baax a baax a baax waaye nit ñi man koo teel a jot ba man koo waajal mu mën a egg fa mu war a jëm xam naa taw feex ju mat sëkk nag dana jafe waaye jàpp nañ ne bu ñu respecté ce euh, ca maanaam jox ko gëdd gi mu war a am respecté date yi respecté aussi promesse yëpp defe naa ñu bari dañ yëg ni am na ak yokkute waaw nag xam naa du du yomb du yomb euh, waaye nag ñu ngi koy séntu loolu daal mooy sunu objectif.